nii buñ fi euh, génnee ces mm-hmm. affaires judiciaires 2024 euh, mun nañu wax ne carrément euh, y aura vraiment des des surprises yoo war a sax li nga xam ne moo nekk carte gi résoudre ko résoudre ko dina xaw a jafe au-delà de Ousmane Sonko lan moo war a nekk taxawaayu opposition bi fu mu toll nii c'est que opposition bi moi je l'ai toujours dit en fait une certaine partie de l'opposition parce que am na ci ñoo xamante ne c'est des gens qui se disent opposants mm. mais on ne les sent pas s'opposer mm-hmm. et un opposant qui ne s'oppose pas n'est pas un opposant. mais aussi du ñëppay euh, bokk ni ñuy fecce am na ñoo xam ne blouse leen gën a mën am ñoo xam ne pacang euh, <laughs> njàpp da ngaa bëgg a ruube rek waaye xam nga ne fii bëri na fi ay opposants yoo xam ne dañ koy wuyoo tour nii rek xam nga man mënumaa jàppee opposant koo xamante ne da ngay gis ay action ñu koy teg yu teguwul ci yoon nga noppi waale ko pour man wooyewu ma la opposant wala ngay def dos à dos wala ngay def dos à mm-hmm. dos di pala ligne <laughs> yaa ngi dégg ni ma koy waxee tout le temps loolu warul man a tax ñu jàppee la opposant mm-hmm. un opposant euh, mënuñu ko jox casquette opposant tant qu'il ne s'implique pas réellement ci li nga xamante ne moom la sénégalais yi di dundee parce que bu fekkee yow dafa am foo taxawee dañoo jàpp ne da nga d'accordul kon dap ni pouvoir bi di doxalee moo tax mm-hmm. euh, sinon qui ne dit rien consent c'est ce que le français dit mais dafa am ay attitudes yoo xamante ne en fait ni daf koy teg ñu mën a jàpp ne opposant membres de l'opposant, ils n'ont pas compris que, mm-hmm. euh, comme tu dis, l'union fait la force. Mm -hmm. Et puis, de femmes, c'est des questions de principe. Ouais. Et quand le principe est là, quelle que soit l'appartenance bu ñu mënti am. Mm. bu fekkente ne dañuy xeex par exemple lu mel ni ay injustice. Mm. lu mel ni ay jaay doole. lu mel ni ay yenn privation de liberté yu ci mel ni ay restrictions ci wàllu droit de l'homme lu ci mel ni par exemple ay liberté d'expression mm. nit dafa war a mën a taxaw di ko xeex mhm. problème bi mooy du xeex àndandoo jàppale sax Ousmane Sonko mais mhm. xeex le droit le droit euh, système bi ñu fi teg mhm. ak ni appareil bi di doxee te parce que liñ ci war a jàngal rek mooy c'est clair que ce qui n'est pas bénéfique à à euh, Ousmane Sonko ne sera certainement pas bénéfique à notre opposant mm-hmm. à moins que mu am leneen lu làqatu ci ginnaaw mais wax dëgg yàlla borom xam-xam yi ñi ñooñu ëpp fuuf xel ci ñi seetaan ak ñi ñuy déglu mm-hmm. war nañu mën a xam ne daf ci am ay mbir yoo xamante ne bu ko nit tegee rek sénégalais yu ci bëri dañuy teey ci sa comportement ak ci sa doxalin mm-hmm. waroon nañu mën a booloo parce que bi Ousmane Sonko di kaas yenn yu ci bari yoo xamante mu ngi dal ñenn ci bu nu taxawoon xeex ko kon du ñu yegg si fii ñu yegg si nii tey dafa am loo xamante ne à la limite xeex ko sax daf leen di arranger ñoom ñi mm-hmm. fetee wàllu opposition parce que c'est clair que bu fekkee benn vague la ñoom ñëpp ñu àndandoo di xeex loo xamante ne teguwul ak yoon mm. bu nu réussir à avoir gain de cause ils seront aussi à l'aise de vouloir tout simplement mener une campagne mais xam nga fu ñuy jëm ci élection yi boo moytuwulee waxuma la état état ak pouvoir ak ak candidat au pouvoir ay Amadou Ba ak yeneen ci topp mm, mm. ñoom ñi bëgg naxee seen bopp ay millions de parrain xam naa bu yàggee li scrutin bi am yëpp 700 mille yëpp 700 millions ñoom ñoo koy jël am problème y a pas de souci on accepte ce game là mais li ma bëgg a wax mooy <laughs> euh, am na ci ay candidats qui se disent opposants yoo xam ne dañuy am problème sax pour def campagne bu normal mm, parce que li ñuy fàtte mooy la volonté et la souveraineté du peuple. Ouais. et ça j'ai souvent envie que les politiques di ci bàyyi xel bu baax. ni ñu daan defee politique ak ni ñu ko defee léegi benn chaque jour on le dit. dans ce sur plateau là. donc dafa am loo xamante ne ils auraient dû s'unir mm-hmm. pour que aujourd'hui ñu mën a am gain de cause par rapport à beaucoup de choses bu ñu amoon union boobu noonu Bougane ba na xeexee côté mm-hmm. xam nga li ma la wax. Euh, Ousmane bañ xeexee côté am keneen ak keneen baña xeexee côté am tey ji li leen dal yëpp te xam naa di nga ci ñëw wante Babacar ak ñeneen ñu ci topp mm. euh, ci loo xamante ne pour man ci waxtu bi ñu leen woowee woon bu ñu taxawoon ne présent mm. pas pour l'acteur politique mais parce que yoon moo tax pas pour Ousmane Sonko mais, mais parce que le peuple aussi des antécédents aussi Sonko voilà. et certains Mami, ce euh, qu'on peut mm. euh, ni ñu singalee Ousmane Sonko mhm. moo jafeel xeexu ñu bari. Mhm. parce que lépp looy xeex pour euh, àq ak yelleefu. Mhm. candidat Ousmane Sonko la dal. aussi ouais. moom la dal et donc beaucoup de personnes. dañuy dañuy confondre ne dañuy jaawale ne bon su ma fi nekkee di xeex pour l' état de droit finalement kan lañu xa xa xañ xañ état de droit. Mhm. Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko lay xeexal mhm. donc man ma toog. Mhm. nangu dog ñàkk nangu dogal la ah. boo gisee ci F24 euh, loolu au début ak yooyu euh, loolu mooy problème bi parce que y avait quand même quatre mesures. à part troisième mandat y avait inclusion. élection inclusive mm-hmm. il y avait les les les mais les détenus ñan lañ du ñu waa Pastef mm-hmm. Mm-hmm. inclusion ku ñu bañ bañ a dàq ku ñu bëgg a dàq Ousmane léegi nag loolu nag boobu espèce bon voilà. bañ a euh, nangu bi bañ a nangu bi. waaw yéen tamit da ngeen a mën a tooñ de parce que élection législative yi nii ngeen defoon yàqal aar Sénégal seen campagne ne dañuy liggéeyal Macky Sall. waaw man là là je suis tout à fait d'accord ah. que. Euh, on aurait vu faire plus de ah. ah. maturité ah. et ah. de grandeur pour mën a euh, pour mën a rassembler l'opposition mm mais mm-hmm. Mm-hmm. mais wax dëgg yàlla li jël suñu énergie yëpp et c'est ça le ah piège moo doon xeex pour bokk mm -hmm. parce que bala ngay wax naan da ngay dajale ñee ñu bokk yow yow yow ci sa bopp euh, cinquante cinq jours ñu tëj la xam nga yow ñu ngi naan radiation yow ñu ngi naan sàcc téléphone yow ñu ngi naan yow ñi ngi naan loolu yëpp nga wéet ci xeex ba pare ñu bëgg nga liggéey pour rassembler donc mm. ça fait que peut-être que chef de moom mi nga xam ne nag moo yore électorat bi mm-hmm. parce que lu ñu ci mënti wax tamit bu F24 wootee bu politiciens yi indiwul nit ñi nit ñi du ñu bari duñ ñëw mm-hmm. dëgg la dañuy mm-hmm. wax ay société civile ñoo ko war a jiite ñoo ko war a kii mais c'était ça aussi le problème c'est vrai c'était ça le problème c'est que ñi nekk euh, ñi ko ñi fa nekkoon ils avaient euh, joué de très grands rôles en 2012 mm -hmm. mais seen lees dafa wàññeeku en 2023 lees bi déplacé wu ci ay frappe ci ay pastef ci ay kii et cetera donc force de frappe sur le terrain foofu la nekk mhm. tey jii même sax élection syndicale yi par ricochet loolu moo leen loolu moo leen aspirer seen vocation. waaw c'est fee lañ nekk. donc ce qui fait que. ñi mm. nanguwul dogal ne kii moo jiite. Mm-hmm. li ñuy xeex ak ak yelleef ci kii foog nga tudd turam. Mm-hmm. foog nga tudd turam il faut voir la groupe. Mm-hmm. mais voilà et puis après après léegi bu ñu waree ànd ñu bëgg def comme si yow boo ko nangoo tu fais du larbinisme maanaam da ngay tarbiyu. ñu naan da ngay lagar lagar. voilà xam nga c'est un mauvais esprit. ah waaye nag waaye nag waaye nag xam naa foofu damay bàyyi sax Cheikh Ousmane ak Ndiab ñu cof fi tuuti parce que da nga wax lu important c'est l'électorat de Ousmane Sonko. Euh, euh, est ce que xam nga ne électorat boobu mooy électorat bi ñu gën a courtiser ah Moustapha. Mhm. mën nañu jàpp ne kon électorat Ousmane Sonko fa la jongo may nekk ak xale yu baax. <laughs> électorat Ousmane Sonko bi de yaakaar naa ne bu Ousmane Sonko joxee dogal sax wax leen de voté leen sax. bu dul ah, voté. Ah. waa léegi kon est ce que est ce que kon opposant yi opposant yi ak ñu nekk pouvoir war ñu réfléchir.